Baol Médias xibaar yu wér te wóor te leer. loolu la wax mooy que a toog bi mooy les marabouts sont des citoyens ordinaires ñaar wax ci la nekk depuis bi mu toogee lan moo dugg fa ndax démb sëñ Assane Mbacke la ñu ngi toog sama dem naa maison d'arrêt de correction bu Diourbel seeti ko tey Cheikh Abdou Mbacke la suba day nekk sëñ Abdou Mbacke sëñ Cheikh Thioro Mbacke nekk Abdou Mbacke la moom juste pour dire ne li tax ñu arrêté Cheikh Abdou Mbacke nekkul wax ji mu wax jëme ko ci Macky ndaxte bu ne xam na ne ki nga xamante ne bii dafa doon saaga depuis deux mille ba tey tey day añandoo ko man donc bu ay de l'État moo tax ñu jàpp mais lu tax ñu jàpp dama ciy préciser c'est très important ñu bëri ba peut-être dafa ne charte mais sénateur bi mu jëlee par au niveau du du rassemblement du 8 juillet dafa wax ne bu moom mooy porter la Mbàkke Baara Dolli ci góor jigéen ñu xamal leen nag ne l'intimidation ne passera pas ndax sëñ Teex ci wax na ko dafa ñëw bés si réew mi ñoo ko fa ànd naa ci moom continué di saaga Sénégal bu fekkee dañuy wax saaga la République Macky Sall moom def ki mu doon def muy saaga saaga bi gën a moom saaga askan bépp saaga bi gën a yées mooy su ma xëyee argent bi di gën di yokk dund gi di gën di cher nit ñi di di sol kooku mooy injustice bi gën a mag pour kenn bañ wax ci injustice boobu bu de l'État diffusion de fausses moom moo njëkk a politique du Sénégal moo njëkk a violer la fonction présidentielle de président de la je le dis haut et fort Macky Sall mérite parce que un président c'est quelqu'un qui est sacré la fonction de ñu xam ne bu ñu demee élection dañuy ñàkk donc enjeu bi loolu enjeu bi mooy département de Mbacké jàpp nañu bu ñu jàppee Cheikh Abdou dañuy gañ département de Mbacké mais bu ñu jàppoon Cheikh Abdou jàpp Cheikh Diop jàpp du Mbacké ndaw jeunesse dinañ porte ko Mbacké on va gagner le département de Mbacké dama ne bu ñu jàppoon ñu élèves ministres yi ñëpp titulaire ak supérieur jeunesse bi nga xamante ne bi ils sont xaaru mandataire nga ne ko jàpp en tant que mandataire ba pare jël dossier jëfal ko juge d'instruction alors que ñëpp xam nañu dañ ko war a jox un juge de ñu àtte ko lu mu gën a gaawee bàyyi ko wala ñu téye ko mais li ñu bëgg mooy. il a dit que voici la plus simple expression de l'opposition. Cette simple expression de l'opposition va se manifester encore une fois le 17 juillet. Nous donnons date à Macky le 17 juillet. Le 17 juillet sera un rassemblement inédit dans la politique du Sénégal. Nous allons à la département de Macky, nous moom nag làmba daa am ay tànk. Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer.